groupement central daal amal ndaje ca Bargny dimanche yem mbokk fukki fan ak ñent ci weer wi janvier atum 2024 ci bés bi nga xam te ne moom lañu di tuddee journée de collecte ñu ci doon taataan sas yi ju dal di sas gox yi ndaje bi dal di amee ci kilifteefu Serigne Magum Kër lay ibn Seydina El Hajj Abdoulaye Thiaw Laay mu àndoon ceeg nag ak Rakam, Chérif Idrissa délégation yi daal di bàyyeekoo ci gox yi daal di nag jébbal seen sas yi. délégation waa Mbour ñu ngi fi Babacar Ndoye moo jiite délégation waa Mbaar Ndiaye Daouda Ndiaye moo jiite délégation. après Yoff daal di fa teew àndaale seen participation. di wax ne ci tur El Hadj Ndoye lu bokkul ak li sëñ Idda parce moom moo yor mbir yi waaye ñu ngi gërëm président euh, représentant xalif yëpp. di gërëm délégation yi bàyyi ko ci localité yëpp ndax idda boo waxante ay nit te ngay taalibe comme ñoom amoo benn autorité boo xam ne féete na ko lu dul li la li la bi dénk nga sas leen ñu mën kaa teggi teggiwuñ ko idda ah, boo toggee ñoom nga wax leen jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci tur El Hadj Mandoy Diathio képp kenn si yéen waaye rawatina nag ñi xam ne lañu waxante woon ak ñoom ñëw nañu respecté loolu waaye ba tey itam li may wax rek xam nga dañu am débat ci sas ak nangam volontarisme ak nangam dañ ci am débat chaque fois waaye nit ki ñu jox la nga ne maaka sasoo ñëw indi ko loolu dañ leen wax jërëjëf ci loolu ñu ciy gërëm yoof bu baax di ci gërëm gorom itam ak dëkk yi xam ne matal nañ seen sas yëpp te am na ko ko wax sànq kan moo joxe ci 600 yi Ngor matal na ak kan Njëgeen matal na ak kan tayba matal na ak kan deni Sud ak kan ak kan mbar njay ak kan Yaraax ak kan keur masar ak kan nga xam ak nga xam dafa am ba ngi ñew yow xaaral parce que dafa am ñu ñuy gëreem ñi matal ak ñi matal sëriñ bi ba si waaw kon yow da da ngay xaar ak kan ku matal Dakar wa kay ak kan Caaroy un million deux cent ak kan Fatick ak ak Kayaar ñi xam ne matal nañ seenu sas ñu leen di sant bu baax waaye ñi xamante ne dañ leen a sas duma ma ne ñu xeeb ci seenu sas waaye ñu joxe ba joxe lu ko raw itam ñooñu buñ leen ñuy jërëjëf ñoom dañ leen di sédd ñaari jërëjëf kon Cambérène waaw Cambérène Cambérène ak démb ko comme tey ba Cambérène ak ëllëg Cambérène daaru hijrati waaw sëñ Cheikh nee na seeni may romba nay ngëneel ndax yéenay capitalu xëy la laa Bargny mi nga xam ne nag moo daal di aye def ni ñi daan aye daan def Bargny Bargny la maam libaas ne woon ñooy ndabalu leeru diine ji dama ne raaya woowu dama ne ñun du daanoo fii bay ñun laata beaucoup bokk bureau bureau mouvement 400 000 nañu ont ñu ñi loolu loolu ba 2009 bi Cheikh Ousseynou de di di génn 000 400000 la ba bari ñi doon doon doon doon mu génn aduna ñu groupement central 500 ko 500000 boobu ba léegi 1 million ba tey central dem sas 2 millions 2 millions nous war organisé organiser sas suñu bopp ñun lu ëpp loolu. li ma bëgg wax foofu mooy gëm-gëm ak yi moo wax nga sànq. ñu daal di fa nag lu weesu fanweeri million ak ñett mu ëpp liñ amoon ni ki daaw laata ñuy tëj nag ndaje bi Chérif Idrissa Thiaw laay daal dina jottali yóbbante Baye Ndiine Thiaw. kon yéen représentant xalif yi fi teew yépp li ma leen di ñaax saa su ne jumeel soo delloo dajaleel ña ko séqal ne leen nangama nangama xew bari ñi waaye la fa solo sëriñ bi nee na mu ngi gërëm njaboot gi loolu la ñaan ñépp ndax de encourager sa njaboot moo gën di décourager sa njaboot sëriñ Ablaye ku roy njàngaleem doo toroxal nit doo toroxal njaboot kon nag diine ji sëriñ bi nee na nanu leen wax merci ndax xam na lool waaye lu ngeen war a def def ngeen ko ñoom waa taabal bii xam na ni li xew tey gëj naa xew caaree géej fa mu matale sasam bu leen bu leen ndax loolu laa doon xuloog sama gaay yi waaw bu leen kon kon mbokk yi mooy lii nga xam ne moom lañ jot a na ci bés bii ñu tudde journée de collecte te ñi à Call le 14 janvier 2024.